Hey, you doom dañu koy sàmm te loole mu ngi tàmbali ca ba nga ko ëmbee juróom ñeenti weer yow ak moom nga ci daj lu ne bés ñëw mu juddu butitu njurukaay boobee doon leen boole ñu daldi koy dagg wen wii mooy doon la muy gëna soxla ngir mu mën a sàmm kaaraangeem Oumou Bengeloum sage-femme bu ñu ràññee la fii ci l'hôpital Dominique bu Pikine mu faratal lool wasin bees yi di nàmpal seen doom yi ci ni mu gën a gaawee ginnaaw bi ñu muccee. pour xale bi euh, li ci njëkk am comme importance mooy liy njëkk génn ci ween bi avant meew bi am na un liquide boo xam ne euh, au début mag ñi dañ ko daan jàpp di ko ratt di ko sànni parce que dañu foogoon a salte la moom moo li ñuy wax anticorps yi commencé dimba parce que xale buy soog a juddu amagul ay anticorps yoo xam ne da koy produit pour mën a xeex contre yenam feebar yi donc loolu noonu moom mooy daanaka vaccin la mooy vaccin bu njëkk boo xam ne day aar xale bi donc bu duggee ci biir bi butit yi lalu foofu yépp doomu jàngoro bu ñëw anticorps yooyu dina mën a taxaw xeex ak feebar donc c'est très important pour xale bi mu commencé namp dès la naissance ne dañ ne dans l'heure qui la la la naissance rek xale bi war nañ ko jox parce que colostrum boobu moo ci am importance ndax daf koy protéger ci feebar yu bëree bëree bëri. sowu wenn doon na lu am solo ci liir wuy doog a juddu ferñeent yamu soxla yépp a nga ca Siré Madi Fall diététicien ak nutritionniste la mu ngi ci andil ay leeral. lait maternel day composé wu sooy xool si 87. pour cent environ euh, ndox xam nga ndox dafa am solo si yaram. mooy éviter lu ñuy wax déshydratation maanaam manque ndox ak lu muy gàllankoor si wér-gu-yaram épuration euh, fonctionnement cellules yi euh, ak yu bëri n'est-ce pas donc suñ jógee si ndox day undi lu ñuy wax protéine. protéine soo ko déggee moom mooy euh, tabax mais également day dugg ci kaaraange wérgu yaram donc fabrication anticorps yi environ litre bu nekk 12 grammes day undi suñ jugee ci protéine dina undi également li ñuy wax euh, lipides maanaam niinaay niinaay boobu dafa am solo lipide dina undi environ ba 35 euh, grammes de lipides par litre n'est-ce pas donc mais lipide boobu lipide bu baax la ndax day participer si euh, développement cellulaire yi neurologique yi mais également cérébral léegi suñ jugee ci loolu dina undi lu ñuy wax sucre mooy undi énergie mooy tax ngay njaxlaf mun yëngatu day mel ni soo koy xayma tey si oto mooy doon essence donc loolu euh, litre bu nekk environ dinañ ci am 12 euh, grammes les vitamines sels minéraux oligo-éléments day undi vitamines yu bëri mel ni ay vitamine A rétinol yooyu nga xam dafa baax si vision dafa baax si croissance màgg day undi ay vitamine groupe B bëri na B1 B2 B6 B9 nga xam dañ ko soxla ba B12 te lait maternel dis nañu da ci am quantité yoo xam moo adapté wu si besoin bébé bi également lu ñuy wax euh, vitamine D 3 surtout boobu nga xam moom mooy tax calcium bi di dugg si yàq bi dina undi ay phosphore fluor magnésium manganèse gis nga euh, ferñeent yooyu yëpp lait maternel da undi te yooyu yëpp dogalul lu dul maanaam euh, màggal xale bi nu mu gënee sàmm ko également nu mu gënee ba du am benn gàllankoor si wàllu wér-gu-yaram nampal sa doom ak wenn mooy li gën bu ñu sukkandikoo ci ñi seen xel màcc ci wàllu woowee wante nag ci jamono ji ñu nekk lu ci ëpp ci jigéen ñi farataalatuñu ko Awa Ndiaye jur na ba tey mu gis sëtam lu ni mel rafetlu ko benn yoon. dëgg yàlla nga nàmpal sa doom ba mu géex moo gën moom si ween bi moom. Kéema Caat mii taxaw sax na ma a nàmpal deux ans yi mat sëkk dëgg yàlla naanu meew naanu dara sama ween bi la nàmp ba ni mu fere mu yokk ci ni goroom bokk na ci jigéen ñi farataal meewi pharmacie yi. am naa sa barki démb boo njaare waaye wuti na meew moom wax dëgg yàlla ma ne ko tey nga moo gën mooy jàmm yaramam nàmpal bi daal maa daa metti bàyyi rek papaam nee naa jënd si meewum pharmacie bi jox ko su muy nàmp waaw si ween bi da wax dëgg yàlla moo gën. Aminata Diop moom it di feddali kàddug Awa Ndiaye. ween moo gën ci booy nàmpal sa ween sa di ko nàmp day am xel bu fekkee jikko ju rafet nga am doom ji da koy jël su fekkee ne xol bu baax nga am doom ji da kay jël su fekkee yëwén nga am doom ji da koy jël ñun suñu cosaan suñu bopp ween la ñu xam ne day basuma nampale bi borom te yàlla may na ma njaboot tubaarkàlla waaye doom bi borom mos seen am samay doom yi ma amee ñu am doom duñu nampale bi borom fi ma jaar ak fi laa leen jaaral ñii lee di góor ñi sax rafetlu wuñu benn yoon doxalinu jigéen ñi ci wàllum nàmpal wi li fi mag ñi bàyyi woon loolu la xale tey defatul tey ñu si bàyyi ñu ngi si biir dañuy jël bii bon jënd ay ay ay lait au niveau de femme naan noonu lii baax na. ku si nàmpal sa doom 6 mois wàcc ka fi bàyyi ko sa yaay dem liggéey xale bi bu yeewoo du nekk xale bi du du la du nekk 100 cent parce que nàmpul soow yaayam ni mu waree. ñu ci bari ci jigéen ñooñu le seen liggéey da leen di gàllankoor ba tax duñu mën a nàmpal comme ni mu waree El Sonko di ci ñaax nguur gi ngir mu bàyyi ci xel. nga femmes yi temps léegi ñoom ñoo yor kër yi. liggéey bu bari femmes yi ñoo koy def dangay ngay gis xale bu ndaw yor biroom du mun a yóbbu xale bi biroom administration sax dañoo interdit nit muy yóbbu doom pour nampal ko ci bureau bi trois mois lañ la may après nga reprendre sa service soo reprendre sa service da ngay bàyyi xale bi ak bon bi léegi weer yi ci des yëpp moom day liggéey huit heures wàcc dix-sept heures xale bi day dem sa ba du miin ndeyam bon bi lay miin loolu Sénégal war nañ xoolaat beneen loi bu nga xam ne dañu may femmes yi tuuti ñu mën a nàmpal seen doom yi quoi. dëgg la sax sowu ween doon na li gën ci liir wii di soog a juddu waaye yaay ji tamit am na lu bari lu muy defar ci moom. pendant les six premiers mois xale bi du nàmp lu dul weenu yaayam. am na importance trop trop ndax am na importance pour yaay ji parce que la femme qui vient d'accoucher ni muy nàmpale day tax ba utérusam gaaw a dellu place donc wéram dafay gën a gaaw day tax ba du perd sang bu bari parce que loci yooyu am na ñoo xam ne dañuy xëpp deret lu bari mais ndaw si buy nàmpal donc bu xale bi juddoo rek ñu jox ko weer bi day tax ba sang bi mu doon perdre lu bari ndax utérus bi dafay gaaw a contracté wu delluwaat place donc loolu avantage bu mag la beneen avantage mooy digganteem ak doomam dafay gën a c'est des liens yi dañuy gën a renforcer parce que bu koy nàmpal di ko xool xale bi loolu déjà dafay neex si ndaw si mais dafay baax tamit ci xale bi donc loolu tamit am na importance si si jigéen et puis allaitement maternel doo ci jënd dara weer la foo dem yóbbaale ko doo ci jënd meew doo ci jënd dara. tey dégg ngeen ñu ne pour lutter contre le cancer du sein nàmpal waxuñu la yem sax si nàmpal doom dem nañ ba ne les couples le mari que muy sucer sein wu euh, ndaw si. te c'est important ndax ay hormones la. ay yeneen dafay entrer en jeu mais yëpp bu ñuy nàmpal di nga gis ne am na njëriñ moo ëpp njëriñ fuuf que bañ a nàmpal ween lii ñuy woowee allaitement exclusif maanaam nàmpal sa doom ak wen wi rek ci diiru bu juróom benn weer bu diir bi matee mën nga tàmbali li ñuy wax diversification alimentaire maanaam ñu yokk yeneen xeetu lekk yu wute ak soowu ween à partir de six mois lait maternel rek du doy donc c' est à partir de ce moment la def li ñuy wax la diversification alimentaire mais du n'importe comment la ñu koy defee suñ koy def dañuy commencer par les fruits et légumes am la def euh, dañ koy mixé def ko sous forme ay compote di ko jox n'est-ce pas ñu ñu également céréales yi nànk-nànk mil waa très bien ruy yooyu mën nañ koy def donc am na multi céréale yi ñuy def également ñu jox ko donc euh, il faut ñu xaar 6 mois céréales war ñu ko teel dugal parce que suñu ko teelee dugal mun na favoriser ay risque d' allergie donc à l'âge adulte comme intolérance au gluten par exemple am na ñoo xam ne wala ñu xaar 6 mois pour insérer céréales yi ay 3 mois 4 mois ñu ñu insérer ko. suñu dugalee céréales yi fruits et légumes à partir de 6 mois léegi suñ dee ba douze mois mun nañ dugal jën yàpp yooyu donc yooyu également jën yi tamit donc pour surtout. les risques d'allergie à l'âge adulte donc euh, parfois am na ñoo xamante ne dañ dem ba màgg nga gis donc suñu yekkee yenn aliments rek yenn jën yi euh, surtout bon produits halieutiques yi jóge si géej rek nga gis ñu am ay réaction allergique ñu def ay production d'histamine réaction allergique yoo xam ne dañuy indil ay problème de peau ay démangeaisons yenn état d'inconfort yi donc yooyu pour éviter cela il faut donc également population bi ñu xam am nañu seen xam-xam màcc si wàllum lekk donc su ñu xamul rek soo amee doon jaaxal ñu rapproché loolu ñooñu ñu xelal leen nu ñu war a toppee seen dund euh, doom mais également même ñoom seen dund. jigéen ñi ci seen xel màcc wala seeti bàjjenu gox yi doon na li gën ngir ñu mën a xam ni ñuy sàmmee seen i njaboot. nampal wen dafa am solo ci ci xale am na yu bari yoo xam ne mi ngi xew xewut woon xewut woon parce que euh, soow dafa baax ci doom yi nga xam ne moom ko yor. waaye jël ji ko jaxase ñi ko jaxasewul woon ñëpp ñu ay góor yàlla lañ ba léegi jikko yi changé yëpp nàmpal yeneen yi pratiquement ñoo ko ñoo ko indi waaye boo jël sa doom téye ko di ko nàmpal boo koy xool rek ngay xam ne exactement cofeel gi dox seen diggante moo tax nàmpal dafa am solo dama ne la maladie yu bari soo bañee mu dal sa doom del nàmpale wen bàyyi gox yëpp dañ leen a ñaax ci loolu jàngal nañ leen ko pare ci tout au début mère enfant lañ leen jàngal xale jigéenu wérul na mu na mu nekkee ak yow ba na muy ëmbee bay imbi yëpp dañ la ko jàngal ba nga xam ko bu paree vaccination yi mu war a def yëpp ah premier mois yi ba nu muy nu mu teeti da nga ko war a topp da nga ko war a topp à la lettre da nga war di vacciner say doom doom yi dañ leen vacciner di leen yóbbu di leen peser muy am malnutrition malnutrition bi ngay gis ñu bari programme bu yu bari mooy nit ñi du ñu jox seen doom li ñu leen war a jox lekk gi ñu leen war a jox pour ñu lekk ko nga xam ne dafa am fer dafa am yépp dañ la koy jox danga am ay ay ay ay ay ay kayit yoo xam ne moom dañ la koy bindal wan la ko nga di ko yóbbaale yenn saa yi di ci booy ñaax jigéen ñi di waxtaan ak ñoom danga leen koy wan. loolu dañu ko jàngal en formation bàjjen tëbu rek doon bàjjen dañu la formé ba pare nga door bàjjen. nampal gi nag diine am na lu mu ci wax imam ka di ci indi ay leeral. sunu borom subhanahu wa taala moo wax ne wali waay day ni wali waay daati yurdiana awlaadoona xawlayni na arada an yutimma radaa way jur yi ñoom ñoo war a nampal seen doom ñaari at ci koo xam bëgg nga sag nampal mat sunu borom subhanahu xam na ni meew yi xeeti meew yi bari na waaye meew mi mu wax ni nanga ko nampal sa doom mooy meewu nit ki su dee mën na am meew mi yaayam ji jur su ko mënta am itam na nekk beneen jigéen boo xam te ne meewam lay doon waaye du doon meewum bàyyi ma dana feeñ ci xelum doom ji aku nekkinam ak nu muy jëflantee ki moroomam dana ci feeñ ndax boo nampee meewum nit nit ngay doon waaye boo nampee meew mi dul meewum nit tam rab rab wala bàyyi ma boobu rek moom ngay moom niru. mu yokk ci ni ngànt mënta ñàkk waaye loolu tamit charia am na lu mu ci wax. ci charia léeg nga gis koo xam ni yaayam dafa am ngantal nampal benn amul am soow walla amul ween sax wu mu nampale loolu xam nañ ko su boobaa beneen jigéen mën na koo nàmpal eh, loolu daana am ci arab yi gis nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaayam nàmpal na ko waaye am na yeneen soxna yu bari yu ko nàmpal loolu moo tax ñu bëgg ki ngay nàmpal sax na nga ko xool muy borom jikko ju rafet xool melokaanam xool eh, xool eh, diineem xool léppam incha allah soowu ween doon lu am solo ci doom am ñu dem sax bay wax ni ween mooy xeet ca ka nga nàmpe moom ngay niru ci jikko ak it ci melo ba tax ñuy ñax jigéen ñi ngir ñu faratal di nàmpal seeni doom te bañ leena jox jox meewi mala yi ségam ñu ngi ci ayu bés bi ñu duppee nampal ak njëriñub soowu ween pañe de soxna may doon leen indil tey li nga xamante ne mooy nàmpal ak li mu ëmb lépp ci doom di leen jox dig daje ci beneen numéro